une innovation de taille pour la lutte sénégalaise Gambian people am ngeen bés bu mag ndax Luc Nicolaï Elko ak Alburah Events ñoo def collaboration boole seen ay doole du xam ngeen ni Modou Lo le roi des arènes moo war a jàkkaarloo ak Ama Baldé sëll bu ndaw Tapha Tine borom takk slip war a jàkkaarloo ak Eumeu Sène surtout Samba Xoya ñu ni nag dañuy dem Gambie sous le patronage du président Adama Barrow de la Gambie le 16 septembre dîner de gala bu exceptionnel ci ak Pape Diouf et la génération consciente. Table de 10 personnes. VIP Platinum, 50 000 dollars. VIP Gold, 40 000 dollars. VIP Silver, 30 000 dollars. Entrée simple, 2500 dollars. mbëri jàkkaarloo ku ci nekk wax jëmal ci sa morom. koo am en direct sur la télévision gambienne. JRTS. sponsor leader ba ñu ne Africell. foo nekk ci Gambia da ngay am réseau. transfert d' argent bi gën ci jamono muy KP. hey Gambia nar naa yëngu de Modou Lo Ama Baldé Tapha Tine Eumeu ak mbëri mbër yi nga xamante ne nii tëgg nañu leen ci bés yooyu war a daje biir gan cey biir collaboration lamb dina ci gagné bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah internet yi topp les arènes ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen bu baax baax a baax baax tey nag ñu ngi fi nga xam ne nii moom mooy Parcelles Assainies ah, ko ñu François Gomis waaw li tax ñu ñoo fi tey nag maanaam ku ne gis na fan yi coow li ni mu yëkkati ko ci diggante Franc ak ay mbër mu mel ni wala sax ñoo mbëri ci seen biir waaye Franc Gris 2 coow li bëri na fa Franc Sa Thiès coow li bari na fa Franc rëg-rëg nag moom dama naan coow la jaru fa muy bëri parce que la tax mooy rëg mu nga ca contrat war bëri ak Bombardier yaa ngi dégg foofu jamaïcain moo fa jaar pour le 24 pour le 24 décembre moo tax nag tey ñu ñëw seet si waa Kër Franc ba xam Franc mi fi toog amul adversaire te Gris 2 ne fi yaa ngi dégg yeneen mbër nekk fi bari fi bay bëgg a dee mais ba tey man mënta jël avance lu tax xeebeel la wala dañ leen a doxut wala nu mu demee noonu lay maa ngi lay nuyu di ziar. oui suñu Babacar ñu ngi lay fay di nuyu say internet di nuyu waa Dakar di nuyu waa les arènes say internet di si di leen bëggee ñëpp di wax tey yéen a ngi ñëw parcelle seet si fans club franc quoi ñun ñooy ñoo nekk ci fans club bi maay président bi kii mooy Jo moo gérer organisation yi kii Jean Baptiste magu magu magu la moom moo gérer wàllum finance quoi. di rafetlu tey seen teewaay di nuyu waa koñ bi waa koñu njaago vu que fii la lépp dooree quoi lépp fii la tàmbalee wax dëgg yàlla. depuis kañ ngeen commencé ngeen créé fans club Franc bi mu dooree la wala dafa door ba ci digg bi ngeen door ko commencé. boo xoolee fans club bañ ko créé en 2019 la boobu Franc bëri na ba dem ba ci kanam ba ñu ngi ko créé en deux mille deux mille dix-neuf bu Zap. Nguer bu Zap uh-huh. premier combat fans club bi moo nekk premier combat ak Franc Nguer bu Zap quoi. depuis boobu suñu borom dañuy suturaal lépp di yokk daal mbër di suñu borom di ko suturaal muy bëri di am ndam. fans club bi actuellement est-ce que mbër maa ngi sentir que ni soutien bi ko fans club bi di defal mu ngi koy yëg bu baax a baax a baax financièrement ak ci xel ak xalaat ak yu mel ni ki noonu est-ce que mu ngi koy yëg bu baax a baax. waaw loolu waaw ah, rafet nañ ci njott de parce que boo xoolee ñun ñii ñun ñuy gérer ko ñun ak suñuy grand lañ boo xoolee bu combat amee dinañ def suñu kéemtalaay kàttan ba luñ mën ak luñ mënul yëpp ñu ngi koy def ñu ngi gis ay tuuti avancement daal même bu dee gis ñu à 100 pour cent ñu ngi sentir ay amélioration ñu ngi dox nank nank ñoo ci ne non bëri na de wax dëgg yàlla waaw. fii parcelle rek la ne la am ay membres wala am na feneen ci Sénégal. boo xoolee am na ay membres ñu nekk fii am na ñu suñu copains yi nekk ci koñ bi ñu nekkul ci koñ ñu nekk à l'étranger am na fi quoi boo xoolee mbër tamit moom suñu borom da ko teel a suturaal mu teel am ay mouvement yu koy jàppale comme ñun fan sa club lañ am na waa Inte Neuf waa dooleel franc mooy ñi ñu ngi koy dégg muy wax ñoom Matar ñu ngi leen ñoom Matar Lo ngi leen siyaar ak ñoom Pape en temps tamit am na ay waa Opine Dio mooy Grand Yoff ñoom Diogine mooy ñi ngay dégg muy sant rek côté boobu moom suñu borom mi ngi koy gis suturaal quoi mafia baa ngi yaatu. lan ngeen gis si moom ba xëy xëy un bon jour rek mu nekk mbër mbër yu bëri fi ngeen xëy ne dañ koy kereel fans club lu mu leen wan lu tax ngeen kereel ko loolu. waaw loolu xam naa moom suñu grand yi toog ñooñu ci gën mën a tontu fii ko ñoom ñoo fi nekkoon ba dara dul loon dara booy bi seen franc boo xoolee def ci koñ bi la nekkoon nekk fi booy ba nu muy duggee ci làmb ji lépp daal ci kanamu gars yi la wax dëgg yàlla de gis nañ ne tamit jàmbaar la quoi qu'on puisse dire il a su montrer ses preuves que ça soit ci arène lutte avec frappe bi que ça soit ci lutte simple bi donc kooku jàppale ko day yomb. Mhm. ci lañ toogee gars yi sentir ne war nañ créer dara lu solid daal pour mën a nekk ci am ci lañ toogee idées yi génn ñu créer fans club bi. Mhm. am na solo kon bàyyil ma dem ci sa waay waaw parce que moom itam war na ci mën a am lu mu ci indi euh, ci lu ni ki noonu euh, bëgg naa la kilifa gi. oui maa ngi oui maa ngi tudd Joseph quoi Sambou dëkkinte set dëkk si koñ bi yàgg si koñ bi voilà di ñaan jàmm si dëkk bi voilà di ñaan ñëpp jàmm tamit voilà di nuyu samay waajur baax a baax voilà. Euh, dégg nga li laay wax ci Franc par rapport bi mu commencé année bi année bi ngeen créé euh, euh, fans club beeg yu mel ni ki noonu ak yu mel ni ki noonu yow looy dolli si loolu. waaw ah, lu may dolli si loolu sax maa ngi dégg laay mu ngi expliqué et puis suñuy taxaw si fans club Franc dañ siy gën a am cofeel di ci feeñal suñu mbégte parce que dafa am ay qualité yu nekk ci moom muy yar ak diine ak teey ak dal te am lu mu bëgg ci àdduna da nga koy wax sax parfois lii la sport di laaj dégg ni fekk moom sax moo la ko moom moo la ko moo la si njëkk sa yow ñu ngi koy wax noonu ko voilà loolu gën a tax tamit ñu gën a sawar si taxaw fan ci clubam taxaw tamit nekk ci wetam quoi parce que tamit ku am yar la man nit su amul yar amul waajur ma pare ci moom quoi te loolu nekk ci moom quoi franchement maanaam ku amul yar amul euh, maanaam déggalul ay waajuram. du ma nekk ak yow du ma nekk ak yow waxtu mënu ma ko nekk ak yow loolu la quoi dama gis ay qualité ci moom et puis doon kan ku ñu jox cër la rawatina man su ma soxloon dara woo ko téléphone non lii laa bëgg day bàyyi lu muy def defal ma dem defi ko voilà dam defi loolu quoi moo tax damay damay ànd ak moom te xam naa ñëpp dañuy ànd ak moom te nekku ñu dong quoi comme laay nu mu ko waxee rek Cambérène Grand Yoff parcelle 1 ba 26 ñëpp ñu ngi ci ginnaawam parce que doo dégg wax bu ñaaw wala beneen affaire ci ginnaawam quoi ñi koy supporter ba dëkk moom mu nekk seen rakk bu ngeen di dégg tey waa làmb wala ñuy wax ñi ba ñu bëri ñuy wax ci làmb jàpp ne Franc yi ëllëg mën na nekk maanaam futur grand champion ëllëg yi Franc mën na ci bokk loolu su ngeen koy dégg nu muy def seen xol. waaw mbégte rek di gën a feeñal ci ñu mbégte parce que kenn ku si nekk loolu lay ñaan loolu la ñuy ñaan de. yàlla def na li la ñu yàlla may dañ koy jël Franc kooku dañ dem ba instant dañuy wax sax daf mel ni deret la ñu bokk yàlla moo ñu moo koy sànni suutura su doon daanu chaque dimanche sax dañuy jóg ànd ak moom parce que yàlla moo ñu boole ak moom tolluwaay la rek yàlla moo ñu boole moom yàlla ma ñu sànni suutura mi am ndam ba ñu koy dégg ci làmb yàlla na gën a yokk foofu noonu voilà ak bépp mbër bi takk ngi am parcelle voilà mais fan yi tamit ku ne gis na ne coowam xaw na bëri ci làmb ji ah. euh, donte amul combat mais coowam bëri na digganteem ak Gris 2 digganteem Sa ba ci Reug Reug mi nga xam ne sax moom mën nañ ne moom am na komba war a bëri ak Bombardier fan yi daal coowul Franc bëri na. saa waay kontaan na su coowam kontaan na dafa soxla lii làmb dafa commencé woon dee tey wàccee si làmb Reug Reug nekk côté bee ne Franc jóg jaay boppam. wane boppam loolu yëpp dañ ko soxloon ci làmb man maa ngi fàttali daf ma jox benn làmba mooy Modou Lo Balla Gaye ba ñuy defee signature bi contrat mbuur làmb dafa dafa am lu mu soxla ci lu bees mais nekkul ñàkk taalibe bala ñàkk yaat bala leneen Franc képp koo xam xam ko ci ñàkk am taalibe xam ko ci yaat xam ko ci gëm boppam gars yi mun wax dafa yomb quoi gars yi toog di wax yenn affaire yeeg c'est que c'est-à-dire booy bi dafa amul yar mbala yenn affaire ñoom la nañ wax lu xam nañ kan la déggoo lu ma la wax nit mënu ma nekk ak moom ci àdduna. ñan ñoo wax amul yar. waaw yow ñu ko fi du bëri mbër du jeeru xaaj mbëri ko fi wax du jeeru xaaj da ngay dégg yenn mbëri commencé wax ay yar comme ay Gris Bordeaux ay non Sega ñi ak ñi Franc déggoo ma Gris 2 xam nga la mooy problème bi. Gris 2 est-ce que amul amul yar de. Gris 2 lan la moom ko seetaan naaw de lan la wax ay mbër bu amul du ma wax su moom waaye ñun si dëkk bi lañ dëkk. Hmm. si dëkk lañ dëkk ma wax loolu. maa toog déglu waaw yow après nga xool maa toog seen seen laa ko seedaane. man mi mbër bu amul yar waaye seen seen dama koy bàyyi xel bu baax sax nee na mbër bu amul yar mu ñu wax ci moom dara di wax ay dingat ay mbër genre ay comme genre di classe ay mbër Franc amul benn mbër lu mu def ci làmb amul benn moromam bu ko def foofu noonu ci làmb pour ñu waxante dëgg bu fekkee palmarès la ñu xool ci tubaab ñoom ñëpp dañuy jël seen kayit ñu tegee ko fële jël kayitu Franc kan li mal ma Ama Baldé ñaata combat la mu daanu li mal ma Boy Niang ñaata combat la mu daanu li mal ma ñoom ñi ngi dégg saa kees ñaata combat la mu daanu Franc moo fi génne douze combats douze de douze victoires. mais tamit est-ce que du li wax ne combat yomb lay bëree ay combat tapaleeg yooyu est-ce que du looloo leen naqari. moom moom mooy tapalekat bi na dem ci làmb ji jaayante ji na dem ci mbapat yi jaayante ji comme ay moromam Franc mbër bu asma du ko moom yaa ngi dégg mbër bu soj du bëreeg moom. Gris de yéen a ngi ni muy waxee man dama ko yërëm sax si wax ay wow ko Franc nan lay daane ay Serigne Ndiaye daan Forza te Forza gars yi ñu ne laak laaka lamb rek Forza ñun yàgg nañ si dëkk bi si dëkk bi lañ dëkk yàgg nañ seetaan lamb dañu ngandawul lan moo doy dugg ñu si lamb ji yaa may la gis na dañu toog laa gis Serigne kii nu mu tudd Forza bu fekkoon si bene écurie la gars yi teg nañ ko fu kawe au nom de Jésus ko fu kawe la fu fekkoon benn écurie la teg nañ ko fu ba muy nekk face Forza ñaata Forza ay nam la dëgër ñaatoon la gars yi waroon war dox ay combat am avant yenn affaire yi nii Forza bu ko gars yi fayda champion la dafa mbapat dañ ko ñàkkal ah, mais sooy jël ay Gris Bordeaux ñuy ñëw Gris 2 ñuy waxee yenn yi ak Forza ak yenn affaire yi comme si que tuutal mbër bu Franc daal ci li ma dégg man bëgg bi ma ko jëlee li mu wax nee na moom mook Forza ñoo bokk ay adversaire parce que ba bëri nag Abdou Diouf Forza daan na Abdou Diouf moom mu daan Abdou Diouf yaa ngi dégg moom foofu la waxee quoi pour man sama dégg-dégg saay Abdou Diouf Abdou Diouf champion la man du ma ñàkkal fayda mbër mais xam la laa leen mën a wax nañu bàyyi mbër di daan mbër jëm a ñàkkal mbër yooyu noonu saa bu fekkee xol bu baax na dana mu mbapati ji. mi su ñëw di wax. mais mook Franc du combat. mook nan la nekkee combat nan la nekkee combat. damay laajte. non du combat moment bi ñun amul mbër bi ñu bañ de mais dañoo xama gis nga xamal problème bi gars yi nañuy bàyyi làkk-làkk nëbal bi ñun xam nañ Franc ku war a bëreel ak ku mu warul bëreel. Sa Thiès ne du leen jël. Sa Thiès moom mooy nekk fii rek mais Sa Thiès moo na jël combat bi mën na jël combat bi xam nga tax mën na du ko jël man nangu naa fenn na ko teg fenn noonu lu rëg-rëg lu mu daan rëg-rëg rëg-rëg dem jëli bombardier mun na bañ mun na du ko jël mais mun na ñëw mu jël franc mu franc mu daan saakees ñàkkul fayda franc saakees daan franc ñàkkul fayda ku nekk mun na daan moromam yaa ngi comprendre mais man laa quoi combat war na ko mun a jël quoi pour man. Gris 2 itam yéen waru ngeen ko mën a jël quoi. kan Gris 2 waaye nan la daanee nan la ñuy daanee saay tamit saay tamit la waaye saay yow di nga xam mooy xëy di liggéey di arrière ki xëy di liggéey nañ avancé. Ah, arrière ngeen ko gis arrière lañ ko gisee gaj nan xëy di liggéey di arrière sa ay soo doon oto di xëy la so jour ngay génn koñ bi di arrière sax nga dégg sa waajur na la góor bul defati lii parce que baaxul say xëy da ngay def nii tout droit dañu waxante dëgg franc nan lay delloo di bëri gars yu bëri ci commentaire yi ñu naan giri deux franc dafa dañu war a bëri dañu war a bëri yoon la mais du léegi dinañ bëri franc na bëri ñëpp franc lamb la dund laa dina bëri ñëpp dina bëri ñëpp lamb la dundalaat saa man dama kontaan si Franc lu mu def nii na gars yi wax lu leen neex na wax mais man dama kontaan parce que dafa dafa feeñalaat lamb lamb dafa commencé woon dee yéen yi moo ko manqué yéen yi moo ko manqué waaw yow bala Gaye ñoo ne fi ba terrain di sànnante ñun ay mbuusu kerem moom Modou Lo déggoo lu ma la wax xanaa yooyu la lamb soxlawaat naka gars yi def moo gën kenn ku si nekk toog waaye déggoo lu ma la wax moo gën ku si nekk toog Reug Reug jox mais li ñu mun a wax ba mun a wax ba mun a wax xam na ni yàgg-yàgg Franc ñu muy bëreel ak ñu mu dul bëre na gars yi bàyyi ñu wax un deux bañ a bëre Franc moo tax ñuy jéem a ñàkkal fayda Franc ay booy bi affaire comme genre ay nam la dëggee yenn affaire yi rafetal xam ne Franc mbër bu am yar la gars yi bu ñuy daw combat moo tax bëgg jël benn wax bu ko teg ci kaw booy bi booy mosoo ko dégg mu wax da nga mos a dégg fenn mu génn mu wax mbala mu def nii ay génn wax ak ñoom wax ak mbër yi dafa génn bàyyi fi ba saison bi di waaj a tëj la génn baay fi riir ñëpp waxaa ñëpp waxtaanee ko waaw loolu la. loolu lañ ci bëgg ñun. mais Gris 2 moom bokkut. non léegi quoi francement Gris 2 du léegi quoi non Gris waay Gris na mbapat moo gën Gris na mbapat. non la mais na mbapat. Reug moo ko mujj daan de. saay Gris ñan la fi daan. giri ñan la fi daan. waaye saa mo loolu moom may metti quoi Abdou Diouf bàyyi di ma wax non ñooñu ay champion lan ay nam paga la Abdou Diouf nangul naa ko champion la mais daan Abdou Diouf loolu jarul fecc yàlla xam na loolu. waay sa waay yow. bëri mbapat daan na bëri mbapat yu bëri de giri de. waay giri de kan la daan giri giri kan la daan ñu saltel mais na wàcc mu dem jaayante gis nga wax bi amul raay raay giri na wàcc na wàcc mbapat bi ñëw. comme ni di wàccee. xol bi su baaxee na wàcc ñëw comme Franc ñu muy wàccee amul raay raay xol bi bu fekkee baax na au nom de Jésus na wàcc mu ñëw. gars yi nañu bàyyi mbapat yi ñuy fooyee ay dem teg fii benn mbapat woo fa benn zoo mala benn genre dem fee xam amul mbër ñu ñëw foofu di jaay affaire nañ dem fee góor yàlla nekk ñu wàcc fa dem na dem fe di deg na Ibou Ndiaye fii nii muy na dem mu xool Obali fee la dëkk jaadukaay ba lee Obali na dem mu dajeeg ñooñu mu xam lépp dëgg la ci mbapat bi di ngay bëreeg ñoom bëgg mu jeex mu waaw yow ñun suñu demee du ñu àggalu combat bi dañuy toog ay problème la foofu ay Serigne Ndiaye nga fa problème la. na jéem a jaayante mu ne ay Serigne Ndiaye problème la ban Serigne Ndiaye la Serigne Ndiaye lamb Serigne Ndiaye la gën a soxla ko Gris Gris nee naa waxee sax nga xam ne làmb Gris la gën a soxla ko Gris waaye ñun xam nañu bàyyi ñu espoir. Iba da ngeen a bëgg a jaxal nga ne lan soxla wuñ ko. non année moom li mu bëgg. ñi ñi muy taamu maanaam ñi mu bëgg a bëreel ñooñu duñ bëreeg moom. ah mais déet moom moom loolu moo ko moom ñi muy bëgg a bëreel ñorul bëreeg moom. boo gisee lu dox temps yi boo xoolee mbër waxoon na ci doon nañ dox combat am ay jamono keroog maa ngi ko gis ci benn interview mu koy weddi mais jamono jii ñu toll nii Franc du bëreeg moom dafa mbër wax na leen ko maanaam bëreeg moom dellu ginnaaw la parce que mënoo dugg face daan fa Serigne Ndiaye relève la daan fa Forza Forza patron la ci Gris quoi qu'on puisse dire bu dee lamb la ñuy wax tourné waat di jël loolu dellu ginnaaw la combat bi Sa Thiès moo war a jël franc parce que moom tamit waaw mais d'accord boo neexee mu bañ dañ ko koy nangul bu ko neexee mu dellu delluwaat yooyu année blanche am yooyu noonu mais loolu amul chance mbër la dafa war a ñëw bëre ñëw may booy bi chance Sa Thiès ñaar ki moom libéré na ko muy rëg rek mook bu dul 2024 di 2025 incha allah moom nag mooy xaar mais li muy gën a yàgg muy gën a métti li ñu waxoon Forza rek combat bi li muy gën a yàgg muy gën a ci yow. Franc mooy li la Zo wax mbër mënu ko bañ champion d'Afrique détenteur drapeau chef de l'État meilleur lutteur en 2018 décerné par l'ANSP agence nationale de la presse sportive du Sénégal loolu Sa Thiès amu ko Gris 2 amu ko Reug Reug da nga ko koy nangul champion d'Afrique la def na fi lu waaw kooku moom dañ koy nangul def na fi lu ne. moom la waaw vainqueur la moom dañ ko koy nangul ko mais ñaar ñee mais ñaar ñee bu dee cadre lamb boo tegee Sa Thiès. Sa Thiès mbër waada la de. non weddiwuñu champion waayu metti dong la bëri nag. weddiwuñu champion. de moom itam benn defet la am. jéegoo ma ñaar ñooñu weddiwuñu seen champion mais dañ la ne non bañul li leen ko de dañ la ne Sa bu jëlee franc franc dumu ko daan ko ci 30 secondes. calcul suñu cinq combats boo ko calculé motuñu 2 minutes 30 secondes boo jëlee luñ fi ñu daanee ngeer. jël bébé Saloum Tyson 2 Sokh keroog forsa boo leen boolee matul 3 minutes. Sa Thiès da nga wax. déggoo ma de prib dib lay doon. Sa Thiès da du bayi prib baax na xaaral ma jeexale ko ak sam waa ji mu tuddati sax moom Jean Baptiste moom mooy grand frère for euh, Franc moom Jean si loo ne. maa ngi sant bu baax Babacar. Jean de Sarak ci temps yi lëmb na làmb ji. waaw mais noonu la noonu la làmb làmb coow lañ ko xamee. yaa mag Franc de. maa ko mag toppul sax ci man. toppul ci yow. mooy suñ caat. mooy caatu kër waaw. ok fan yii coow mag làmb ji adversaire yi. waaw mais yëfu làmb la ci làmb la bokk. ci làmb la làmb coow lañ ko xamee di. làmb tax gars yi toog ci jotaay di débat. coowu lamb mm-hmm. xam nga fubal am boo demee grand place am fubal lañ ci waxtaan la ñuy waxtaanee mais làmb bu amul coow kenn du ci waxtaan. Ah, waaw moo tax làmb foog muy am coow. foog muy coow. mais di euh, dégg nga gars yi li ñu wax ci diggante mag Gris nañ Gris day xaar. Gris waaw champion la tamit champion la parce que am def def na fi dara quoi. waaw champion la def na fi dara waaw dañ koy nangu tamit quoi parce que daan na ay champion. waaw mais tamit Gris 2 fu ko Franc di soxla Gris 2 instant soxlawul woon Franc. bu ko Franc soxla soxlawu kon Franc. soxlawul woon Franc mais instant a Franc dafa nekk ci yoonam di dem yoonam Gris 2 Gris 2 kañ la gëj a Gris 2 lu Franc def nii sax da ko mer da ci làmb mu nekkoon maam du ma ko wo du ma sax jaar ci turam hmm? waaye yow xam nga fii ko ko dóor mu fay boo jaaree ci turam da lay tontu loolu moo andiwaat Gris Bordeaux giri 2 ci kii ci làmb wax ji mais du nangu nanguwuñu sax pour mu doon làmb. mais est-ce que du ngeen bëree ak moom. bëree ak moom pour. ngeen bëree rek leeral diggante bi. leeral dara lu ci lëndëm mañ ke leeral. Ah, comme moom nee lu yomb ngeen di moom ña ñoom kan kan la fi daan ay mbër yu ay champion la fi daan ay mbër yu mag mais léegi ana ñooñu ñu mu daan ñëpp ñëpp bàyyi nañu. Pakala Pakala kañ la gëj a bëre. Abdou Diouf it waxagut bàyyi na de. kañ la gëj a bëre. Gris ñaari at la toog bëriwul sax la ñuy wax ñun Gris 2 ñun sax dañu ko namoon ci làmb pour ñun sax bàyyi na bëre. ah mais. mais nag Reug ko daan. waaw bi yow Reug Reug depuis kañ ko daan war na def léegi 3 ans si yoon. Reug Reug ñaari combat la ci bëre. du ñàkk adversaire a tax loolu mu mu. na dem adversaire yi bu muy door a démarrer daa amoon problème adversaire Franc da waa wàññi na sax cachet pour adversaire pour bëreeg adversaire am pour bëreeg mbër. am nañ ci lu ñu leer jël cachet am wàññi ko pour bëreeg mbër waaw na góorgóor def noonu delluwaat ci làmb bu dee xale la bu dee mën na ko tamit. sax parce que Sa tamit dina bëriwul ak yéen. Sa waaw moom dañ nga koy nangul waaw parce que Sa Thiès dañ nga koy nangul parce que. bëreegul ak yéen sax. waaw du heure yi bu ko neexee bu ko neexee parce que dafa ne ci yoonam tamit dañ ko koy nangul de mais daal luñ lay mën ci wax. léegi kon nu ngeen di def. buñ neexee xaar. am na yeneen mbër yu fi ne mun nañ xaar saa Thiès wala Reug Reug. Reug Reug ak Bombardier. waaw yow dañoo ragal loolu. Reug Reug ngeen bëgg a xaar. waaw ak keneen keneen ku dul ñooñu sax. mais grand contre petit bi fi am ay man bu doon sama sago sax booy ñu bëri seen biir. mais booy dañoo est ce que booy nag seen combat dàqul grand contre petit. moo tax loolu laa lay bëgg a wax. saa ci si rëg ba na mu neexee woon. grand yi contre petit la ñuy def booy jëlee fi grand yi affaire booy ñoom seen biir seen géew. Ah, ñu grand yu neexu ñu fay jëlee de. yan grand kana kana fi des. grand yu naqari fii kenn lañ naan grand de du grand muy Modou Lo. Modou Lo mu newul grand lu mu doon. Modou Lo du daa a bëre rek. Modou Lo ay moromam a ko desel ci làmb de ay góor nag magam yëpp ay moroom rek a fi def waaw ci grand yi nga koy boole parce que mooy roi bi waaw dafa dugg seen biir géew defa lu ne tëleen tamit dëgg am na ko ko ci daan mais boo lekkee avance am di nga xam ne lekk nga avance boo xamante waaw am na ñu ñaar ko ci daan waaw boo lekkee avance am di nga xam ne lekk nga avance goo xamante ni ay suma xamoon nga ciy jëlee kon waa Pikine la ñu lekk su ma xamul lañ ciy mujj waa waaw yow ñooñu moom leen Modou loo wax rek ñoon bëri ñoon dafa neex mais coow lay bëri parce que dañuy wax rek dañuy wax rek te ku leen tontu ñu mer ñaari at lañ fi toog di tontu Moodu Moodu Moodu boobu lu leen tontoo ñu mer li ci mel ni Pape saar moomu tamit laay waxal man sax Pape Sarr laay waxal mag la mag bu amee njaboot am na yoo xam ne waratu la ci ay média nag moom Moodu daa wax mu tontu kan et puis Pape léegi bàyyi na lépp man dellu ginnaaw rek parce que da nga andi sa micro combat franc bi passé da ci wax lu doy waar kon Forza. for fan noonu la ñuy faree boo faree kay mais faral sa mbër me bul dingal beneen mbër bi di nga ngay dafa réew nangam sangam Pape na xam ni mag la Franc du ko tontu de ñun ñooy wax ak moom ah Pape na nekk mag moom amul mbër amatul mbër bu a daan Franc Pape Sarr bu dee loolu lay bañ a dégg. boo waxee loolu nu mu ko ànd des na ci ànd ak yow. kan Pikine Ama Baldé ne fa. ak kan Boy Niang ne fa. ak kan. saa kon tey ay jaatu Boston nag ñoom. Franc wuyu bëreeg soog. ay Pokola Balde déglu ma ay yow Pokola Balde moomu jaxase parcelle gi. kan kan la fi jaxase. ah Dame Sugeer mi dëkkul parcelle. waaw la dëkk. ah waaw nga ne mbër mu mën a daan fa. ah Balde moomu de xamewul janj ak joor. waaw mais non kooku du du ñu wax ak moom parce que ñu wax ak dañ koy boole suñu course. ah mu ngi mu ngi ci gune na yéeg waaw na ñëw ba yéeg. na ñëw ba yéeg parce que waa mbër yi Pikine sax seen mbër mag yi dañuy bañ ku la ñuy tëkku te Ama Baldé ñetti combat la fi bëri dem tukki Modou Lo te kenn waxu ci dara dañuy xam ne làmb coow la ñoom dañoo bëgg làmb te xamuñu lu ci làmb coow làmb buñ ka bañ ñun boo ñëwee tëkku mu beneen mbër Pokola boo ko neexee mu tëkku Franc kenn mënu ci dara moom moomu bopp boo ko neexee tëkku Franc te ñoon mus nañ jàmmarloo ci stade foofu avant Franc di bëre sok Sokh ñun ñoo woon foofu waaye yow ñu loolu yow yal na yàlla dogal daal komba am Franc daal yal na am combat Gris 2 am komba Sa am combat mbër yi amul combat yëpp yàlla nañ am combat dégg ngeen li nga xam ne moom la fan si Franc yi wax a grand frère mel ni ki nag ah ñoom wax nañ ci koosu seen mbër yaa ngi dégg waaye loo ci mën a dégg daal mbër yi faw ñu jaxasoo bëri suñ bëggee làmb ji neex faw ñu bëree de du mën a ñàkk loolu moom faw mu am waaye nag maa ngi leen koy wax bu leen ko fàtte bu leen ko jaawale samedi 16 ca Gambia face to face Modou Xarañ Lo roi des arènes ak ki nga xam ne moom mooy sël bu ndaw Ama Balde doomu Pikine ak ki nga xam ne moom mooy le géant di Bawol Moustapha tin ak ki nga xam ne moom mooy l'homme de taille Singa Eumeu Sène loolu samedi lay am ca Gambia Pape Diouf moo koy tëgg dîner de gala lay doon kon gars yi bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax a baax ak kan Alburax Events ànd ak lig Nicolay Enco loolu samedi lay doon ca Gambia dina neex dina yëngu waaw kon gars ah? lu mu bëgg a wax kilifa gi bëgg naa la waaw waaw waaw comme da ngaa xaw a yéex coxal tuuti rek mu gaaw. waaw ah, ak ça ñu ngi lay jaare di la jox sa wàccuwaay bu baax di kontaan ci li nga def nii quoi Franc nag ñun amuñu lu dul moom waaw nit nag boo amee benn bëñ rek da ngay fexe mu set waaw Franc moom ku ne xam na lim fi def ku ko xool gis ko ku ko làmb daj ko waaw te koo xamul noo koy def nam la defa tax Franc lim defa tax kenn mënatu koo daw ci làmb gars yi nañ xam yoonam nag waaw ñi ñu koy wax yooyu yëpp du xew boo bëggee xew bu neex dëgg laalal Franc paccal li moom toj kaani lay def waaw lu leer laa lay wax te ku ci daw nag da ngay def lu la neex rek mais ku ko ci mën yàlla sàkk ko ci ci ñoom mbër yooyu noonu waaw VIP nag amatu fi de boo bëggee dégg dëgg xale bi dafa fees dell ak doole waa te sarax ndoo nga daara mu dem ak yoonam waaw noonu la demee Franc nag moom lañ am ñun waaw moom lañ am waaw te xam nga mooy loolu gudd na ba mënuñ koo tëb gàtt na ba mënuñ koo burum waaw te nag li olof di wax rek waaw ku bañ a ku bu bu njaab yàggee rek nga war feeñ waaw Franc daal boo bëggee dégg dëgg ku ko fi mën nekku fi ku ko fi moytu nag am na fi déedéet déedéet nekku fi nekku fi am na solo jaajëf kon dégg ngeen ñoom li ñu waxee soppee franc yi franc nag comme ni ñu koy rek defe naa loolu ñëpp xam nañ ko mbër la champion la boo xam ne ñun yar nañ waaye làmb nag olof na dug dabante la garab la ci kaw lay fekkante lu mënti xew jaxasoo bëri dina am moom ci xale yi man maa la ko wax bu bu ngeen ci lancé bi ngeen ne di ngeen jaxasoo de waaye li ma leen wax ko fàtte de samedi incha rabbi le 16 Pape Diouf l'homme de génération ca Gambia ak les arènes du mën a ñàkk yàlla nañu ko fekk te tal ko. yer waa goy jabar wan nga xëja daana yer waa goy jabar ji rek loo ci mën a dégg nañ ko way jabar wan nga xëja daana ak lu mën a xew daal maamur nañu way lamb ji noonu wallaay dëgg la